et ana problème en plus nga seet sa doom bi mel da nga fàtte ne am nga fi sax doom yow na nga góorgóorlu bu baax sa papa daa bëgg nga jàng gis nga nu mu sonnee ci jàng ak sama doom ji ba lii am dama ne takkuma jabar joo xam ne day xëy di dem di wàcc di fi bàyyi man dama tak jabar joo xam ne dafa ma toppatoo ma nga xoolal toppal sama loxo bi

patron naa la la jàpp naa la ay parce que depuis lors ba léegi ñuy xaar professeur VT joxoon nga ñu calmant deux semaines deux semaines yi passé na ba léegi ñu ngi ci un mois. Euh, sachez que moi je le temps qu'il faut parce que. avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes en classe d'examen. Nous n'avons pas le temps et nous avons un programme à finir. Montagne en tant que doyen, en tant que frère aussi. Montagne avec moi, ce qu'on a fait, l'église que bien dans Hein? Comment les gens fait pour nous Alors, il vous demande une semaine. Donnez-lui une semaine. mais moo retourner en classe. yow def ma lu baax ak lu la yàq si yoon bi yeb. ah wa mais lolou lolou dara loolu liggéey ko laaj am ben problème.

li dund mooy nga dem ba ma fi café sax maa koy songo man nekk man maay arrêté en fait merde quoi je n'ai marre dama sonn. ii ah, dama sonn waay ah. yow nag jaañ na yow nga lan la ah sànq bële bi yaa wax maa ngi. xam nga doon man jaxatu eh rafet. xanaa kay di ñaan rek bis dina ñëw dina ko changé mu mel ni meloon ndax jaañ naan bu ma xamoon démb ak tey du jaañ gis. parce que ko doon bay mooy loolu D'accord. En tout cas, si ce n'est pas fait, il y aura forcément un mouvement.